mi la ñuy waxal na bàyyi nu mu gën a gaawee kii di Guy Marius Sagna ak ay ñoñam wala bokk lu leen dal ci kaso bi na xam ne moom Alaaji Macky Sall moom mooy responsable ñoom sax nas nañu ab manifester fukki fan ak ñett ci weeru décembre gi lay doon ñu teewlu ci Mignane juuf bokk ci forum social ay kàddoom ci micro Papa Balla Gueye pour ñun arrêté Ousmane Ngom manta am maqaama bu ñëw yéeg ci kaw constitution ci marché boobu nag ñu jàpp suñuy mbokk di leen paaj baajloo ci diggante commissariat central ak cave pour ñu mun a xëy na ku ci nekk caalit gii nag mu ngi liberté 6 ci anam yoo xamante ni nee nañu ñi ñu fay dugal yëpp dañu leen di jàpp ne ay terroriste lañu xanaa nag terroriste ju dem di marché yorul sax suuf yorul bant yorul liif yorul fetal mais yooyu yëpp xam nañ ne dañ koy def rek pour xëy na yegg ci sunu xel ak sunu xol ba ñu mën a daanu xëy na bàyyi li nga xamante ni moom la ñu mébét duñ ci bàyyi dara nag ndegam constitution mu ne am nañu sañ-sañ dox doxub ñaxtu nañu bàyyi ñi ñu jàpp juste tous juste parce que dañoo doon dox doxub ñaxtu ñi ñu war a jàpp ñu ngi ci dëkk bi di tambaambaal te xam nañ loolu nag bu leeree ñu xamoon itam ni fan yi ñu jëm ñun collectif bi mu ngi gën di yaatu njax syndicat yi nga xamante ni itam bu dund gi seeree ñoom ñoo koy njëkk a yëg ndax syndicaliste boo gis nekk kuy liggéey daanaka mu ngi dundal lu mot fukki nit ak lu teg kon bu ñu ko yokkalee ndox ma yokk courant ba yokk école ba ak paj gi ñoom ñooy gën a sonn ndax ñoom ñooy dundal njaboot. kàddu yi Mignane Diouf bokk si forum social ci manifestation boobu nga xamante ni ñoo bañ ñoo lank daanu ko amal fukki fan ak ñett ci weeru décembre.